envoyé a TV à travers que chaque semaine chaque deux semaines maa ngi nekk dans une capitale mhm. yi damay gis gars yi bu mhm. ñu yeewoo rek 2A TV. di leen ñaanal yéen ñëpp daal cal na leen lafal bu teg la ma njëkk catam. amiin amiin amiin yaa rabbi amiin amiin amiin amiin. waaw ñu wax ne tamit euh, yéen a yëgloo. waaw yéen a ñu yëgloo tamit. wax ko da yéen ñu dëfal da ngeen ñu dëfal parce que da ngeen ñu wax euh, ne Sénégal dal na dal gii ngay ngan yàgg ñaan yàlla indi ko ñu dal boobu ñu def ñu dalal ñu fi nekk mm-hmm. di la jaajëfal di wax ni euh, waaw on est toujours en contact avec vous wax alors yàlla famille la jërëjëf jërëjëf alors li tax li tax ma woo la euh, dafa am loo xam ni da nga ma ko soufflé mu nekk lu lu nu lu nu metti loo xam ni dañ ko war a wax ñëpp dégg ko ay sénégalais yoo xam ni malheureusement ñu wax ko fii defe naa su ma juumul bu ma juumee nga leeral ma Allemagne musuñu dox ci di expulser ay sénégalais c'est sous l'ère Macky Sall malheureusement une de ses rencontres ak Angela Merkel ñu dugg ci ay accords yu jur ñuy commencer di expulser sénégalais am na benn nombre boo xam ne wax nga nu ko ñu ñu war a jamono bi expulser encore ñu war a joge Allemagne mën nga nu leeral foofu un peu. waaw effectivement xam nga y a eu yoo xam ni c'est c'était isolé. Mm-hmm. kooku c'est des Sénégalais qui ont donc individuellement maille à partir avec la justice kooku donc amul benn nation bu fay taxaw naan dañ leen di défendre donte am na ci ñoo xamante ne ñuy défendre seen i doomu réew. mais à partir des accords yi nga xamante ni am non encore révélés. Mhm. non encore révélés. parce que mhm. dañu nekk ñu wax rek ay accords ay accords mais wax ko dëgg yàlla sénégalais si boppam en tant que citoyen sénégalais waroon nañu am aussi des pages ouvertes l'écriture complète du contenu des accords. Mhm. ça veut dire que lu xew rek pour ñun c'est la conséquence de ces accords. parce que ba léegi taxaw ñu kenn wax ñu ko la preuve. la députée Ndeye Satala mhm. donc il trois jours à l'Assemblée nationale donc elle a reposé le débat interpellé na Aïssata Tall Sall jox ko aussi un courier officiel mhm. nee na ma maa ngi woon waxtaan ak moom démb ak tey yëpp aussi nee na ma ba léegi ministre bi tontuwu ko ba léegi tontuwu ko avec une association bi nekk Sénégal donc bu ñuy wax fii kooku Saliou boobu moo nekk au Sénégal mi ngi foofu Dakar. Mhm. moom mooy tàmm bi accueillir sénégalais yi yi ñuy rapatrier in petto. Mhm. kon boog Saliou boobu ku wàcc aéroport rek xam na kañ nga ñëw pourquoi parce que dafay liggéey ak man ak une bu ñuy woowee fii Astrid Astrid boobu nag yàlla moo ñu ko xéwalee mooy lan. Mhm. moom mun almaay mën nañ ko tuddee sax traîtresse. parce que activiste la moom mi ngi liggéey. ci centre de rassemblement des demandeurs d'asile dont la demande a été refusée mmh. et centre de déportation donc ci ñoom la bokk mais day génne tout euh, toutes les informations donc utiles et cachées di ma ko véhiculer wala mu koy jox même waa Horizon Sans Frontières mhm. par ma voix wala mu jox ko Saliou boobu nekk Dakar si la ñuy xam nag des déportations cachées mhm. avec aussi le un travail acharné bu président des Sénégalais de Munich mu ñuy wooyee donc euh, Pape Moussa ma ne ñoom ñooy liggéey nii. Mhm. léegi li ci nekk nii mooy dinañ yóbbu nii bien euh, après demain enfin je dirai après demain je dirai le premier c'est prévu un vol jàpp leen ne vol yooyu di yóbbu ñooñu ñi ciy nekk nii en mhm. ay sénégalais ñoo xamante ni mooy ñi nga xam ne dañuy échappé woon ci. identification ba le passé dañ mhm. leen def ay genre contravention yoo xamante ni fii Allemagne dañ ko tuddee ñu ne ñoom dañu ne c'est criminalisé mhm. mooy demuloo ci identification bi pour ñoom kenn la dañ lay dañ lay boole comme ku rey nit wala ku sàcc ok donc ñooñu la ñuy jàpp en ce moment daw di leen bett seen kër ay fajar di leen jël denc leen léegi nag ñun dara rek la ñu mën a wax loo xam ne c'est positif mooy que ne Allemagne dañ doon préparer benn charter dara rek moo fi am lu positif loo xam ne le Sénégal l'a refusé charter boobu pourquoi xam naa xam naa wàññi coow bi ba ñoom ñu indi avion bu fees dell ak ay sénégalais moo tax. donc léegi Allemagne li ñuy def dañ leen di dugal dans des vols réguliers nii ci vols yi noonu parce boo gisee li waroon xaj ci chantier bi ñoom la ñuy roq di leen yóbbu par par juróom-juróom par fukk-fukk c'est c'est ce qui va se passer le premier mm-hmm. alors en ce moment euh, euh, la députée Ndeye Sadela elle a un projet de venir à l'instant en Allemagne mm pour entrer en contact parce que jéem na ko xeex ci assemblée bi jotul foofu benn réponse de la part de la part de la ministre Aïssata Tall donc elle va descendre sur le terrain. Mhm. ak ñi fi nekk fii ànd ak moom. léegi ñun on peut jamais dire exactement ñaata la ñuy yóbbu tel jour. ok mais on sait que gars yi bu ñu eggee aéroport dañoo jox seen ay seen seen téléphone ñu woote ne ñoo ngi nii ñoo ngi nii embarqué ñoo ngi nii di embarqué wala egg si nañu Dakar. et c' est là où ça donc euh, amul kenn ku leen taxaw ne lii mooy mais bi cette fois-ci avec l'aide de la femme allemande la Astrid boobu. Mhm. jox nañ déjà une liste officielle nii ah dégg nga des huit qui vont venir sur Dakar malgré eux ak seen i am ci am ay njaboot fii jël leen yóbbu leen. pourquoi parce que ñoom nee nañu demuñu woon ci identification bu lay passé parce que mooy bool jot ñu leen jàpp yóbbu ci diggante bi ak ñoo xamante a et puis et puis où où ça fait mal mooy. Mhm. par exemple bu ñu la joxee convocation. Mhm. demuloo oh, euh, le président de l'association des sénégalais ak man mii yàgg nañ leen wax ne ku leen jox convocation bu leen dem bu leen dem identification. Mhm. léegi nag ñoom bu ñu la joxee benn joxaat la ñaar. ñetteel bi xam nga lan la. waay dafa mel ni ku ñu ku ñu ku ñu jox euh, maanaam ku ñu déposé plainte parce que crime la. Mhm. léegi nag su Sénégalais boobu nga jox ko boobu plainte ne crime la ba pare ne ko da ngay fay nangam ci xaalis léeg-léeg dana dem ba. donc euh, quelque chose comme sept cent mille parce que wuyu juloo convocation boo amulee sept cent mille boobu CFA je parle de CFA donc wala mille euros boo ko amulee ñu da nga koy tëdd juróom-benni fan kaso. Hmm. léegi xale yi ne ah ma ko di ji juróom benni fan kaso parce que xaalis boobu su ma xamoon yónnee ko sama kër. Hmm. waaw boo tëddee juróom benni fan kaso rek jeex na ñu comme un criminel bu ko defee loi allemande da leen di may ñu la donc c' est l'histoire comme on dit du qui se mord la queue. qui hmm. tourne en rond qui tourne en rond. et je crois que tant que l' sénégalais n' aura pas posé une main forte sur la table. et de dire que mes enfants dorénavant lii lii lii lii dañ leen di jàpp di rompat par benn benn par juróom-juróom te dañ koy wax ni rek bàyyi di ko waxaat bàyyi parce que maintenant l'État a eu peur maintenant de faire atterrir benn charter foofu avec ay quatre-vingts wala ay cent sénégalais wàccandoo mu droit duñ ko àttan. ok donc moo tax moo bàyyi la ñuy rompat par juróom-juróom par fukk. donc c'est la situation actuelle. Mais en tout cas, de notre côté ici, nous qui comme il le faut, comme avec euh, Horizon Sans Frontières, nous qui Donc, euh, euh, avec euh, aussi euh, la femme allemande Astra, Astrid, euh, ouais, activiste, mm -hmm. moi, je donc secret du Moussa, Pape Moussa, le président des Sénégalais Bayoul. Tu vois, dans le surtout notre représentant qui est là-bas au Sénégal mooy Saliou boobu. Mm-hmm. donc bëggoon nga ko ak en contact parce que moom léeg-léeg sax ñun yenn information dafa ñuy rëcc fii day jékki-jékki rek woo ma ne ma eh mais grand bi tey ñu ne ñu ñett maa indi woon il a deux mois ou trois à l'aéroport benn autorité ñëwul accueillir leen. mu jël leen xaalis boppam ñu ngi mu amoon sax ay yenn Casamance Casamance des jeunes Casamance dañuy defoon ñun on a honte d'aller là-bas en Casamance dañuy bàyyi li toog fii si kër ba ñu gis ak moyen moom moo leen denc ci kër ba mu passé moyen privé. c' est extraordinaire ñenn ñi mu jox leen parti ñu bi seen village. c' est extraordinaire. c' est c' est extraordinaire. donc euh, c' est tout ce se passe parce que malheureusement il y de choses qui se passent en même temps au Sénégal ba on ne sait plus quoi donner la tête mooy li ñuy wax ne Sénégal bu benn la juddoo si si loolu mooy lépp. waaye daal benn tey euh, jàpp leen ne daal euh, sénégalais yaa ngi fii ba léegi amaguñu cette liberté donc de citoyen international ayant le droit de circuler où ils veulent quand ils veulent parce que c'est le droit international. Mmh, mmh, mmh. c'est dommage. Ça, c'est euh, donc euh, ce que la députée Aïssata, euh, à la députée donc Ndeye Satala di xeex ni étant la députée de la diaspora. waay waay donc révélé woon na ko à l'assemblée dernièrement parce que même ñoom xamuñu ko woon sax d'ailleurs bi mu taxawee dafa lay ne xam leen xam na maay kan man maay Ndeye Satala député diaspora kan moom ma ñëw di wax yu mel nii mais donc elle a interpellé interpellé tout un monde. moom loolu moo ko fa taxoon ñëw quoi du woon ay assemblée bu ñuy tëj bu ñu dul tëj mais moom problème diaspora yi lañ doon xeexal nii quoi. jërëjëf loolu daal laa amoon di ko wax nii di wax ne occasion bi ñu may nii parce que du ma ne man ñun nga ko may les sénégalais. <laughs> waaw mooy da nga nekk da nga ñu njaboote ñun ñëpp ku ci nekk muy caat. dégg nga di taaw ku ci nekk da nga ko jox kan da ko jox cëram mu wax li mu war a wax wax li mu bëgg a wax ñoom ñëpp nag ñu dénk ma seen kàddu ma ñëw jàllale ko fii ci 2A TV. jërëjëf sénégalais au Sénégal. ya yal na yàlla yàlla yàlla moom moom am na lépp yàlla na yàlla euh, dimbali sénégalais yi nekk foofu si Allemagne yi nekk partout en Europe partout dans le monde. Euh, am na ay sénégalais yuy dund actuellement le le calvaire en Turquie. Euh, sunu benn kilifa bu noo wax njàpp liggéey amaana daañu ko si jot. Turquie tamit sénégalais yaa ngi fa sonn d'une façon incroyable et et apparemment sunu ay kilifa fii Sénégal ñoom daal mënuñ ci dara mun moom daal mun moom daal bu ñu bu eggee fenn fi rek ñu ñëw taxaw répliquer demaat toog voilà donc donc. il faut C'est peut-être euh, euh, le pays, le Sénégal, qui est, qui est vendu à travers le monde par rapport donc euh, à ce qu'on appelle son émergence donc, matérielle. Mais euh, le Sénégalais, Sénégalais, mmh. vraiment, il ne vaut que dalle en dehors de son pays. C'est terrible. Voilà. Et cette parce que j'en sais quelque chose. Presque chaque deux semaines, je suis dans une capitale européenne. Je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup dans de, de, de, de sociétés, dans, dans, dans, différentes euh, donc, activités. Hmm. Je rencontre les Sénégalais, ou c'est à Londres, ou c'est à Birmingham, ou c'est à Madrid, à Barcelone, ou c'est donc en France aussi, partout. Mais, par exemple, mais comment Toi, tu es ah oui, c'est normal, tu es allemand. Pourquoi Parce que bon, les Sénégalais, les gars, ils C'est terrible. Pourquoi Parce que c'est le tampon qu'on a mis sur les Sénégalais qui sont à l'extérieur. Pourquoi ouais. Parce qu'on n'a pas appris à les défendre. La députée de cette mini pour une réouverture des, consulats. Pour aller là-bas, pour au moins à partir de là, ñu commencé jox mais so demee dans ton propre consulat ñu dàq la dugaloo waaw. c'est incroyable dama jàng fan ngay dem l'image alors que tu vas dans les autres consulats. des autres pays ba accueil boo duggee salon d'accueil bi rek da ngay dugg rek da ngay dugg rek toog ndeysaan daal di bés ndox naan toog xaar ñoom mais fële nga xam bi nga dem di nekk ci mbedd mi di naan ci bunt bi ngay nekk di rang c'est incroyable ah incroyable ngay la joxoon rendez-vous à neuf heures yow yaa ngi foofu à huit heures et demi ki joxoon rendez-vous à neuf heures ay midi mooy mu dugg si di la romb di la nuyu Mais comment on peut revaloriser le Sénégalais avec ça ouais. Nous, on fait de notre mieux aussi en, euh, partout dans l'étranger. Le Sénégal, c'est un travailleur. Le Sénégalais, c'est un travailleur. ku am jom la. Mhm. ku bëgg a def wane ni mu mën la. ubbil ko bunt bi rek jox ko les moyens mu def la woon la. Mhm. mais boo ko tëjalee te ñu ñu tëjal bunt yi. c' est pas c' est pas nos pays d' accueil qui ont fermé les portes. parce que ñoom ils toujours loué les capacité des Sénégalais, mmh. les facultés des Sénégalais à s'adapter, à, à, à, à, montrer leur expérience et leur intelligence de pratique. Mhm. mais bu ñu bindee seen diggu gannaaw tàmp na ci sénégalais à vendre <laughs> yàlla ba yàlla baal ci kenn. mais à vendre kay tàmp sa diggu gannaaw mais tubaab bi loolu rek lay xaar. tubaab dafa yore buubum buubum la yore de yeew ko bu wëndeel. wut golo gu mu yeewu ngeen jëggal ma ci terme yi. c'est ça c'est c'est c'est c'est malheureux c'est malheureux c'est c'est euh, peut-être peut-être ma ma am fu ma chuté ak yow rek bàyyi la nga nga jublu ci liggéey bi. Euh, mm-hmm. ban information nga nu mun a jox ci Sadio maane actuellement. comme yaa ngi nekk Allemagne du ñàkk après sax ma jéem jot sama baay bi Tiendou Cissé mais mais mais lan nga ci mën a wax ci kaawu Sadio Mané actuellement ak la presse allemande en général. non xam nga xam nga li ci nekk mooy suba rek ñoom ñu woon fële euh, euh, à euh, je crois. mu jub Allemagne Japon Japon oui. donc boo gisee même fii. ce matin parce que man damay yeewu à cinq heures di jël toutes les informations de toutes les chaînes que ça soit les chaînes espagnoles ou mais pour te espagnol yi ñoom ñoo doon wane Sadio à l'arrivée de l'aéroport ak ni muy dugg dañu doon saafoonte ñoom mais fii télévision allemande bi dégg nga kese la ñu comment ils sont heureux d'arriver là-bas pour faire ces ces ces matchs de science ak quoi sa Sadio par flash lañ ko war a ne la groupe ba muy def des étirements. Mm-hmm. bon heureusement heureusement moom xam aussi. Mm-hmm. parce que la preuve boo xoolee avant-hier après sa séance d'entraînement. Mm-hmm. muy génn journaliste na leen yaa yaa biite lii boo leen doon mën a ko wax a ko d'abord français waaw impose ko. mën a or English ay ne ko I want mu ne ko loo bëgg mu ne ko I want talk for an interview mu ne ko mu ne ko yow yow yow yow mii yow bés bu ne ngeen yow nekk sama der bi mhm. di ma rey mhm. nga ne yow da ak yow mhm. dal ko woon gannaaw ciipatu ko dem almaa yi nag dégg nga di laajte ciipatu boobu mooy la benn da ko il ba Afrique ngeen xam la muy ciipatu nga demee Sadio mën na ciipatu saa il Ça a été la fierté de tous les Africains. Alhamdulillah. C'est un garçon brave. Parce que moi qui parle en tant que psychologue, et je connais ça en Allemagne, ayant vécu ici maintenant une quarantaine d'années, 15 ans de pratique de psychologie, je connais l'allemand comme ma poche. Donc, quand l'allemand se prépare à te détériorer, xam na naka lay def. Mhm. dañuy ubbi toutes les sorties d'erreur moom la ñuy ubbi pour pour ba wax la ci. Mhm. Mhm. donc euh, bu waxoon foofu dara rek dañ koy transformer complètement mu bàyyi na ñoom ñu daan seen propre piège mu tax mu ko yéen ngeen may rey bis bu ne ngeen bëgg ma toog di wax ak yéen lu may wax ak yéen. donc là c'est c'est en tout cas moi j'ai beaucoup beaucoup confiance en moom moom. surtout surtout timide hein euh, dafa am un moral de fer la am combattant mm-hmm. ce jeune là mm-hmm. et puis ñu wax ko te ba mu jugee la quoi moom dëgg ba mu jugee la la daal c'est ça waaw c'est ça dañ koy ñaanal rek yàlla yokk wér gu yaram amiin amiin mais je sais que en ce moment on parle tous les jours, toutes les minutes, dans toutes les télés allemandes, on parle donc de la présence de l'équipe allemande là-bas à l'étranger. Okay. ñuy interviewé seen joueurs benn par benn fii naamugul kenn ku ko tàllal micro. donc euh, de toute façon loolu moo ko ci gënal sax parce que lu mu fi wax gars yi dañu koy interpréter. c'est ça c'est ça. le c'est l'esprit allemand c'est le mental allemand. Mm-hmm. ñeneen ñi nga xamante ni par exemple ñu ngi nekk dans les équipes allemandes ñi ci ëpp chance. Mm-hmm. parce que bu ko ma mooy ñi nga xam ne seen baay daf leen am fii ak seen yaayu allemand. ok comme le roi Sané. waaw voilà man du ma tudd tur parce que ñun ñëpp dañ ma xam. Mhm. mais je sais que ba léegi donte am na ay ci biir bi ay ñu ñuul mais jàppal nañ ñoom ñëpp xoolal seen yaay yi nit ñu weex lañu. ok voilà. wala xoolal dañ leen adopté fii ñu am turu allemand. ok waaye ku ci mel ni Sadio même si l' esprit sportif l' accepte. mais l'esprit allemand ne l'a pas encore épousé. ca ca ca ca maami Hitler ya la. jërëjëf xa yoo xam nga fu may laal nga fu may wax. c'est c'est ci seen deret la ci seen deret la du ñu ko supporter. waaw jërëjëf si l'esprit le sportif l'esprit sportif l'a accepté l'esprit allemand ne l'a pas encore toléré ba pare nga bëgg ñu ridiculiser seen ñu seen ñu weex ñi nga xam ne ñoo fi nekk wala seen genn wala ñu weex ñi xam ne dañu ñun ñu wax naan il casse les carreaux. c'est cela. Donc c'est une situation que Sadio d'ailleurs a bien, bien, bien maîtrisée. Montant, il donne pas d'interview, on le voit pas. Même dans les gros restaurants, on ne le voit pas. Mhm. On le voit pas même dans les artères où les, les stars allemandes aiment se promener. Mmh. Sadio, pour les Allemands, parce que c'est un fantôme. Okay. C'est un fantôme. Je sais est bien encadré par Tiendou. Comme il très très souvent. Excellent. Parce que damay wax ak moom. comme su ma su ma su ma su ma coupé yow léegi dinaa woo sunu baay bi Thiendou. incha allah incha allah nga ñëw ko bu baax allah jërëjëf jërëjëf. merci pour tout Moustapha Mbaye ma may wax ne may wax ne may wax ne yow ancien international nga athlète sénégalais. oui oui tout à fait. jërëjëf est ma nga ma rappeler rek lan nga def ci compétition. Donc, man je courais le 400 mètres et le 800 mètres. C'est ça. Donc, euh, dans l'équipe nationale du Sénégal, après nous, donc, euh, année yu ñu génnee Sénégal dem dëkk ji en France à Paris à l'INSEP de Paris booba temps yooyu Moussa Fall auteur moo fa nekkoon. Mm. Amadou Diaba. Moussa Fall cent ak euh, Aïssatou Tandian ak Doudou Ndiaye Manick mbay Charles Seck donc on était un groupe boobu. donc groupe yooyu ñoom ñoo demoon à Los Angeles 84 et 88. jërëjëf donc euh, jusqu'à présent donc genn wàll yëpp ñu ngi dëkk fii aussi en Europe et voilà c'était c'était ma carrière. yàlla yàlla yàlla yàlla yokk barkeel. amiin amiin jërëjëf jërëjëf kilifa bi je suis je suis dans le fitness je suis expert en fitness. oui donc. Euh, en même temps psychologue, je, en Europe, je vends un programme qu'on appelle le renforcement du mental. Excellent. Euh, ce sujet-là, j'ai eu à le discuter avec Ndem Siala Ndesan, je nous m'en dit pas le même qui introduit dans les, équipes nationales du Sénégal, mhm. parce que projet Boumoustouni, donc, donc concocté Agman, pour qu'il y ait un accompagnement psychologique de nos internationaux sénégalais, oui. soit la discipline. parce que y a eu un moment ce qui nous a manqué yow gis nga ko sax xam nga ne que soient les qualités individuelles et techniques de nos joueurs là mais c'est l'assemblage de tout cela qui fait une équipe est forte mais une équipe qui gagne et puissante c'est une c'est une équipe qui moralement a été préparée qui mm envoyée en mission moo gis moo gis lu Allemagne yi ma tax techniquement mais dañ leen di yónni en mission hmm. et cette mission là qui est donc parachevée par un accompagnement des, des Je vois. Et ça, il faut nous penser, du coup, introduire dans euh, euh, dëgg la dëgg la jërëjëf jërëjëf kilifa bi mbay Moustapha jërëjëf yàlla nañ fi yàgg ak wér. Ah, amin amin amin jërëjëf ñaanal Sénégal jàmm ji yow daal li maa ngi naan amin na jàmm gën a doy rek. incha allah jàmm ji gën a doy rek. incha ko suñu borom defal. amin amin amin wax ju am maanaa la wax am solo ki fi gën yàlla na ko yàlla teg. amin loolu am solo. amin maandu la jërëjëf waaw jërëjëf sant di la ko. jërëjëf jërëjëf merci beaucoup euh, bonne journée pour tout le Sénégal. merci. Mame Diarra. li gën a am solo ci àdduna mhm. mooy laajte pour xam su suñu déggee suñu kilifa bii mhm. dañuy am dañuy am plaisir déglu ko c'est un mais en même dañuy am njàqare bu ñu ko dégloo pare mhm. nan nga mën a fekkee ay sénégalais yoo xam ni mosuñu am jafe-jafe ñu ngay daan seen doole kenn tut lijjantiwu leen nga ñëw am noo waxee Angela Merkel kenn xamul la mu doon yéen da na a falu naan waaw na ñii sénégalais yi newul ci yoon ci àdduna bi ne ñibbisi lu ci sa yoon lan moo la si ñooñu ba ñuy dem yëgoo tinoo lijjanti woo xamoo faluwoo faluwuleen ngeen ñëw di rapatrier et puis vous rapatriez les gens vous ne leur donnez pas de quoi manger ay benn sandwich ba wàccee aéroport dégg nga li mu wax sànq ñoo xam dañ leen di indi ka di dem di jëli sax moo leen di jox paas jox leen kii mii torox tànge boobu pour lan. mais may bàyyi sa man li may laaj mooy que ni waxuma sax lajjite bi nga xamante ne état wu Sénégal am na ko euh, ci ndaw ñi mais état Sénégal ban problème la am ak ndaw ñi. ndaw réewam euh, euh, boo seetloo ndaw yi moom ay manifestation moo am ndaw ñi ñu leen di tiire ay bal ñuy faatu mhm. ndaw ñi la ñuy giñ ay force occulte xom mhm. noonu lañ koy waxeem déet mhm. ndaw ñi lañuy ñuy rapatrier ci ay réew yi ñu nekkoon à la fin doo comprendre ñoom ban jafe-jafe la am ak ndaw ñi est-ce que nekkul le fait que ñu yeewu. topp benn leader est-ce que nekkul loolu moom haine boobu lañ leen jëlal bokk. Euh, ta question ne ne reste toujours intéressante. Mm-hmm. sachant que bu ñu xoolee euh, comportement wu régime bi. Mm-hmm. l'ego seen ego surdimensionné moo leen indi ci échec bu ñu bu ñuy dund nii. Mm-hmm. mais la question intéressante ci beneen anam mooy fan la ñu teg. mu mel ni ñu dañu sonal ndaw ñi lu tax je dirais pas que peut-être parce que dañoo ànd ak diw mais je dirais une chose man dama jàpp nii sax au-delà de égo beeg lépp xam nga lan la hmm. billaahi kilifa yi diggéen nu baal mais danaa ko wax ñàkk xam-xam képp nag parce que xoolil baat bu dee xeex sax même ci xeex sax aayuñu wuy hmm. ma même ci xeex sax billaahi aayuñu ce régime là parce que ñàkk mën xeex moo tax seen ay adversaire ëpp leen doole xuli te ñoom am nañ tous les moyens du monde mais mais mais maam Diarra maam Diarra nan nga mën a comprendre ab sénégalais bu toog fële te wóor na ma ne sénégalais yi ñuy rapatrier. Mm-hmm. bii régime bii di falu fecc nañu way nañu kontaan nañu. wallaay ndeysaan. ndekete yooyu yaay moo la musiba maaba kumba Allemagne ñu dégg jafe-jafe yooyu ak sénégalais yi. ay mm-hmm. dañuy rapatrier dañuy léegi xoolal système bi ñu koy defee par groupe de cinq de six de trois kenn du yëg kenn du waaye yàlla baax na ñun am nañu téléphone bu nu wootee <laughs> waaw yàlla moom yaatu na mën nañu jël suñu téléphone woote. waaw di nga leen weer ba ñu mel ni géej déet weeruñu kenn ñun kay weeruñu kenn dañuy dañuy. <laughs> mais seen li nga wax seen ay fee ñun weeruñu <laughs> information sax joxewuñu ko. Mhm. dañuy woote laajte. Mhm. waaw bu nu laajtee nag nu wax nu nu xamal nu waaye lenn yenn iñaan yi man man iñaan laa mënut a ci doomu mhm. aadama. iñaan ak soxor ak bon. xulil te iñaan nag foo fekk nit ku iñaan maam jaara xulil seetlul ba baax uy ma seetlul ba baax nit ko iñaan kanamam wuy ma bàyyi ma wax la bàyyi xel li ma lay wax de nit ka soxor ka iñaan wuy ma mhm. saa yoo ko gisee bu doon multimilliardaire itam du feeñ ci moom xam nga lan ngaa gis mhm. lëndëm kurus dafa lëndëm te kenn am lu pourtant dana sangu dana diw dana defaru dana toppatoo boppam mais dafa am lu ko tiim mu lëndëm ndax xamul tax xol bee dëgër. puis dafay yàlla bu mu dal kilifa yi. day feeñ sax seen kanam. waaye yow bon foo fekk ñiy def lu bon nit buy def lu bon di soxore di iñaan wuy ma moo xam ci kàddu moo xam ci jëf. Hmm. xoolal dafa feeñ si ñoom Sénégal nag ce vent là d'apaisement là bi am ni yàlla na ko yàlla leeral. amiin président Macky Sall bi yàlla roof baax baax yàlla na yàlla yàgg roof baax baax boobu ci moom ak ña mu àndal ba mu jël décision sage de respecter la constitution respecter sa parole donnée yàlla na loolu wuy ba ñu jàll étape bi jàpp naa nag man ci sama gis-gis ba gàtt